sadiq ba kokoy borom Bawor doonoy sadiq ba kokoy borom Bawor doonoy sadiq ba kokoy borom Bawor Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibrahima Fall ku sopp daa bay mam Seynabu Njaay babil murit lampam ba te mooy donuy Cheikh Ibra Fall ci baatin lampa waxoon ni mooy ki fob baatin te mooy donoy Seydina Aliyu jàmbaari lislaam jete mooy wàlliyu moo donn fi wa ak tabam ga moo doon njàmbaar ga te gëmëm nga badara jullit la kante murid saadiq la jullit la kante murid saadiq la ku wóolu woon ku wóolu woon te gëm aboori jàll ku teel man boppam ki nekku baayam te jënde ko taalube jaay njurilam daana ko jox fu mu dool ay idaaya yoonu mbaar mokk na ngir nagam ya ku weddi nga laaj ma samba kokki ngir daana dem njaarim te daawul tekki wallaay jox na seera faal lu nekk ba seera faal gërëm ko ngërëm lu nekk loola saxoo ba seera faal xëy wàcc mu fedd deram te mos la dàcci Faal te mos la moo donnu moo donnu moo donnu kër Cheikh Ibra Fall fa gébbu di saa mandaay Cheikh Ibra Fall fa gébbu moo donnu kër Cheikh Ibra Fall fa gébbu di saa mandaay Cheikh Ibra Fall fa gébbu dal di nu jas yanam romb ñëpp dëngañ di ba xëy na raw góor ñëpp ji waay fa Seex Rafaal ba woon pengam ma moo ko ni cas moo yee salaat mbayam ma yokkaat na dig wa daa giwaat a leer ya yeesal na xol ya dolliwaat positif ya bàyyib Seex borom Mbawar Faal bàyyib Seex borom Mbawar Faal mos na di mos na di wax banaanu maaj lanti noor lu ñëw ma jàllale billaay ji wax a wóor du ñeme bor ndax man dama am ak pay ku weddi lii doxal ma dal di lay fay wala fiye neeñu menum samba manul kanam ba noppi man gannaaw ba walaay xaw ma mooma samba nu man a mel waaye du seenum samba walaay samba la man gannaawam badara daana wax naan bay Cheikh borom Faal sama yaakaar daana wax naan walaay samba la mu man gannaawam manin raw ma neen wa woon fakkaan amam déglul ma wax la déglul ma wax la déglul ma wax la bismillah inna walilaay ma way borom mbawoor li waj ilaay jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan uh, Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun uh, ci présentation bi seen mbokk Arouna Cissé ci uh, caméraman bi ngeen jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy Cheikh Sambou mbokk yi ñi nga ñi ngi fi nga xam ne moom moo di ci pencum Paleen ci ci kër Serigne Cheikh Fall Mbawar moom Serigne Aliou Fall Mbawar moom maam Cheikh Ibrahima Fall xam ngeen ne nag ni mu koy amalee at mu jot bu tabaski desee ñeenti fan ci di addiya xari tabaski yoo am solo yoo xam ne nii sëriñ euh, bi euh, da koy euh, def muy xar yu am solo yoo xam ne da koy amal di ko yóbbu fi nga xam ne moom moo di ci sëriñ Touba Cheikh Sidil Makhtar Mbacké jamono ji nag ñi ngi taxaw ak sëriñ bi xam naa ñu sori ci bi yi su ko defee rek bu sëriñ bi nuyoo ñu dellu si rek ci li nga xam ne mooy sababu yóbbu addiya yi tabaski yi di xar yu am solo yoo xam ne sëriñ Cheikh Fall Mawar at mu jot ñu ne ko rek sëriñ bi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant jàllal ni ci seeni taxawaay de moom la ma la ci waxoon rek li ko waraloon mooy maam sunu Ibrahima moom la sun borom doon seetlu ba xam bëgg na ko wala moom la do xalilullaay wane ne mooy xaritam bi mu ko defee nag Ismaayila bi mu juddoo Iblis ne ko sa néeg ba keneen sanc na ci maanaam nit ci xol la xam nga bëgg ci xol lay ne mhm. te bëgg yàlla lañ def yooyu boonam ko bulaay wala asado ban waa asad tan ki la mhm. mu ne ko sa néeg ba keneen sanc na ko sun borom xamal ko ne ko kooko maak ko gënal mhm. eh, Iblis bëgg dindi lool suñu borom ne ko danaa masa am bis ma woon la ko bañ eggee nag eh, maam sunu Ibrahima suñu borom géntuloo ko mu war a rendi Ismaïla ba mu ko defee ñaari yoon ba ñett nag mu wax ko Ismaïla Ismaayla na ko defal la la yàlla sant mhm. saa tajirén insha allah mina sabirin da nga ma fekk ma bokk ca way muñ mhm. Iblis demaat ca ndeyam ne ko yow dund nga ba am lu ëpp juróom-ñett fukki at di soog doom ñu bëgg koo rey mhm. kooka ne ko gannaaw ndigalal yàlla dóor ko juróom-ñaari sànni ko juróom-ñaari doj Ismaaylaat mu ñëw ne ko yow sa ndey ak sa baay dund nañ bay màggat ngay xale bu góor ba ku la gis bëgg la ñu bëgg laa rey sacrifié la mhm. kookaat ne ko seytaane nga dóor ko juróom ñaari doj mhm. mu dem ne Ibrahima dund ba màggat yor benn doom bëgg koo rey mhm. sa borom mi ne sa xarit du sa xarit mu dóor ko juróom ñaari doj mooy jamratul wusta jamratul ula ak jamratul wusta ak jamratul aqaba yi ñu sànni jamra yi ñu sànni te màgg boobee nag bu mu ko defee mu ne mu di ko reen nag sun borom moo Eh, jibril boo fekkee mu rendi ko da nga génn ci kuréelu malaayika yi mhm. te dañuy wax ne ba muy rëdd àddina mhm. ca digg màkka a taxaw rek men laaf mi la tàllal wëndeel ko ba mu ba mu wër mooy mooy àddina mhm. boobee nag juróom-ñaar fukki junniy laaf yam yor yëpp la naawee ñëw fekk ibrahima fa muy waaj a rendee ismaïla diggante bi loxoom di jógee ba muy ba paaka bi teg ci baatam wuutal na fa am xar ndax wa fa day naaw bi sifin asimin la ko moo tax man leen suñu borom ba muy laaju taam bu daga na bu ma ko amee di ko yóbbaale. ba mu ko waxee lool nag. mu ron fa mu ron fa xar ma mu rendi ko mu mu jóg Ismaïla eh, te fekk ba mu ba mu jëkkee di dawal paaka bi paaka bi daa mel na daa diit dëggut mu jël ko lestik weñ weñ nga dali fële mu tegaat ko li ma laan reen rek lakk ak tàkk ak yëpp ilaa yéeg bu ca génnee dootuma mënal kenn dara ndax ma ca boppam bañ ko dugalee ca sawara ba ko sun borom ne yaa naaru ko ni bardan wa salaaman sawara wa daa daa sawara yi addina yëpp a giim mu ne ko wa salaaman ala Ibrahima wu ci xool sa bopp Ibrahima nekku ci nga

daal lenn ci limu xar yi nga xam ne nii fas yéene nga koy yóbbu. lim bi nag lim bi de moom boo xoolee ni yaa ngi koy gisal sa bopp xam nga ko. Mhm. alam yaxalam bi ànd laa yaraa nag laa koy def rek. Mhm. <laughs> waaw koy jox daal xam na ko. Mhm. sëñ ko ko ko junni ne mu ko seet ko xanaa xamoo mu ne ko laa yaraa xanaa yàlla tax nga koy joxe da defe ne amuti bët. gisu ko jamono ji fan nga fas yéene fekk sëriñ bi. ah sëñ sëñ Thiamat léegi kër sëñ Touba rek. fi mu nekk fa la koy fekk jox ko mhm. waaw incha allah jërëjëf kon jërëjëf ñi fàttali giléem li ma la newoon bu nu amee hippopotame di ko ci boole bi bi mu ñëwut moo tax ñu ci boole giléem mhm. bu ko defee togg ñam yi boole ci mhm. xam nga ba ci giléem añ màkkaat ñu ne giléem a ca ëpp tuyaaba boo ko amul nag boo ko amul xar boo ko bëy moom bëggal nag la ca màkk ak li ci fii lépp noonu boole ko jox sëñ bi moo tax ma di ko jënd di ko ci boole ah, ah. jërëjëf macha allah jërëjëf kon ñu leen di sant di leen gërëm da nga ah. ci xamee ci ngay xamee jigéen ju nangul borom këram ndax saarata lam nangu woon ci mhm. ngay xamee doom ju nangul baayam ndax ismaïla lam nangul ibrahima ci ngay xamee taalibi bu nangul sëriñam it ndax ibrahima lam nangul yàlla dama leen nag foo fekk eh, soxna soo xam ne xari eh, nooni jëkkëram ay xaritam mhm. mooy yées ci jigéen ñi foo fekk doom joo xam ne nooni bàyyi may xaritam mooy yées ci mhm. ci sëriñ te loolee ca la aj màkka jaare ah, ah, ismaïla moom ba mu juddoo foofu te booba ko fa ibrahima sànni mm. da ko ne si digg àll bii nga may wàcc ca fekk boobu jëm ma ko mayeen Ibrahima moo dem ba ko siis mm-hmm. mu sun borom ne ko yóbbu ba mu demee ba ci digg àll fa mu ko wàcce mhm. muy màkk bi waarin xayra si sarin jëm ko xur woo xam ne amatul lekk amatul ñu naan te ay doj képp mhm. mu ne ko waaye ndigal la suñu borom la mu ne kon ba ma fekk yàlla ba mu ko fa bàyyee nag ba Ismaïla boo jamono yi mu juddoo mhm. euh, Safa ak Marwa gi ñuy dawit ca la tàmbale ndax bu Ibrahima bu Saarata dawee ba ca Safa gis loolu ñax naaju day tëgal doomu mel na ndox a fa nekk boo demee waalu gi donc da nga ko gis bu bëccëg gi <laughs> <laughs> doo fekk dara mu dem Marwa defee ma fa fekk ndax juróom ñaar yoon yam ko def nag mm. moo tax bu ku ci ajeeti da nga dem safa ak marwa mm. inna safa wa marwa min sawaa'iri laay jooju la ko sun borom wax lépp ci la jaare inshallah kon ci kanam tuuti rek inshallah dinañ ànd ak yéen dem foofee nga xam ne moom moo di ci kër uh, Serigne Touba Cheikh Sidil Makhtar Mbacké mi nga xam ne moom la ñu fas yéene yóbbul li nga xam ne moom moo di addiye yi kon ci kanam tuuti rek inshallah dara du leen ci umpu ak Touba Argentine TV à uh, Onde Cissé Cheikh Sambou ak Abdou Ndiaye incha allah muy équipe bu am solo boo xam ne ñu ngi fii ci diwaan bu Touba ngir lépp loo xam ne ay yëngu la jëm ci wàllu diine des na ci ànd ak yéen kon ci kanam tuuti rek Cheikh Samb incha allah ñu di daal di ji ma ànd ak Baye Fall yi ànd ak Serigne bi dem fële nga xam ne moom moo di kër Serigne Touba euh, Khadim Rasoul fekk fa ki nga xam ne moom moo di Cheikh Sidil Makhtar Mbacké ci at yu am solo yi nga xam ne Serigne Cheikh Fall Mbaor mi ngi koy amal. wax na ne waajuram 78 la fi jógee booba ba léegi mi ngi koy amal te waajuram moo ko tàmbali woon moom bi mu ñëwee dolli na ci giléem giléem gi gis ngeen ko noonu kon su ko defee rek incha allah ñu dig leen daje ci kanam tuuti incha allah ñu ànd ak yéen dem fële nga xam ne moom moo di ci kër Sëñ Tuubaa Cheikh Sidil Makhtar Mbacké xalifatub Seydina Aliou moom Cheikh Ibra Fall ki lay wàlliyu borom Mbawar Fall moo yor turam ba jël dëddoom donn fulaam ja jël garaat yarango seex borom Mbawar Faal jomam ja ak waare ga ak xorom sa mi ngi ci yow yow doomi soxna sa seex borom Mbawar Faal lewet ga ak yaatu ga ak njàmbaar ga borom Mbawar doon na ko kamaal ga seex borom Mbawar Faal Cheikh Bara Mbaye Fall Cheikh Bara Mbaye Fall donn na mbuut yowoon fa siixi alliyu yal na yàgg donn mbawoor ak gébb mooy walliyu Cheikh Bara Mbaye Fall bu màggalee mu rax gëleem yay ganale buñ sottalee mu tiim ndabam yay dënale Cheikh Bara Mbaye Fall Isaa mu toog fa pinc may def warga te boole ko waare ca kaw njoon ga Cheikh Barab Mawar Faal Isaa mu toog ni makk jublu penku Isaa mandaay maamam jafe fa penku Cheikh Barab Mawar Faal Isaa mu génn toog fere ya war ko muy jàjje tey waare baleer ya war ko Cheikh Barab Mawar Faal billaahi waat naa ni bileb xar nu ne yaa fi di maam Ibra njukkal laa war ku ne Cheikh borom ba war faal wasilate waslu ba dootul laal suuf Cheikh borom ba war faal Cheikh borom ba war faal wasilati wasilati wasnu ba dootul laal suuf na yaa di maam lamp ci fi kaw suuf tabaski gi ay xari xaaf yu ñuy yéem ngay joxe addiya toftal ca gëleem bu ñu wumee nga dal di fop sa gàtt yaa defar ko bam sell nga muur ca morso ya te boo joxee ndigal ñu dal di soufflé si kar sa jolli gaañe dal di jiitle Seex Borom Mbawor Faal yaa doon mboot ya fa Mbawor ak Gébu Faal mat nga sëriñ giñ naa yaa di lamp Faal na lay te sulli ndamam te wax jaloorem ndax kuy murit defam ya war na lay kookoy borom ba war doonoy ba saadiq Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibrahima Faal ku sopp daa bay mam Seynabu Njaay Baabil Murit lampam ba te mooy donuy Cheikh Ibra Faal ci baatin lampa waxoon ni mooy ki fob sa baatin te mooy donoy Seydina Aliyu jàmbaari lislaam jete mooy waliyu moo donnu fituuray wa ak tabam nga moo doon njàmbaar ga te gëmëm nga badara julin laa kante muru saadiq la julin laa kante muru saadiq la ku walu woon ku walu woon te gëm abori jàll ku teel man boppam ci nekku baayam te jënde ko taalube jaay njurilam daana ko jox fu mu toll ay idaaya loolu mbaar mokk na ngir nagam ya ku weddi nga laaj ma samba kokki ngir daana dem njaarim te daawul tekki wallaay jox na seera faal lu nekk ba seera faal gërëm ko ngërëm lu nekk loola saxoo ba seera faal xëy wàcc mu fedd deram te mos la dàcci Cheikh Faal te mos la daa badara moo donnu moo donnu kër Cheikh Ibra Fall fa gébbu di saa mandaay Cheikh Ibra Fall fa gébbu di saa mandaay Cheikh Ibra Fall fa gébbu dal di nu jas yanam romb ñëpp dëngañ di wéy na raw góor ñëpp ji fa Seex Rafaal ba woon pengam ma moo ko ni cas moo yee salaat mbayam ma yokkaat na dig wa daa giwaat a leer ya yeesal na xol ya dolliwaat positif ya baayib Seex borom Mbawor Faal baayib Seex borom Mbawor Faal mos na di mos na di wax banaanu maaji lanti lu ñëw ma jàllale billaay ji wax a wóor du ñeme bor ndax man dama amak ak pay ku weddi lii doxal ma dal di lay fay wala fiye neeñu menum samba manul kanam ba noppi man gannaaw ba walaay xaw ma mooma samba nu man a mel waaye du seenum samba walaay samba laa man gannaawam badara daana wax naan bay Cheikh borom Mbawar sama yaakaar daana wax naan wallaay samba laa mu man gannaawam manin raw manin wa fa kanamam déglul ma wax déglul ma wax la déglul ma wax la bismillahi inna walilaay ma way borom ba li waj ilaay xalifatub seydina aliyo moom Cheikh Ibra Fall ki lay waliyu Cheikh borom ba woor Fall jël dëddoom ga lambo donn fulaam ja jël garaat yarango Cheikh borom ba woor jomam ja ak waare ga ak sa mi ngi ci yow doomi soxna sa Cheikh Borom Mbaor Fall lewet ga ak yaatu ga ak njàmbaar ga Borom Mbaor doon ko kamaal ga Cheikh Borom Mbaor Fall Cheikh Borom Mbaor Fall Cheikh Borom Mbaor Fall doon fa Cheikh Aliou yal na yàgg donn mbawoor ak gébb mooy wàlli yu seex borom mbawoor faal bu màggalee mu rëx gëleem yay ganale buñ sottalee mu tiim ndabam yay dënale seex borom mbawoor faal yiisa mu toog fa pinc may def warga te boole ko waare ca kaw njoon ga seex borom mbawoor faal yiisa mu toog ni makk jublu penku bisaa mandaay maamam jafe fa penku Cheikh borom ba war faal yi mu génn toog fere ya war ko muy jajje tey waare baleer ya war ko Cheikh borom ba war faal billaayi waat naa ni bileb xar nunu ne yaa fi di maam Ibra njukkal laa war ku ne borom ba war faal wasilate waslu ba dootul laal suuf cheikh borom Mbawar Fall cheikh borom Mbawar Fall wasilati wasilati wasilati wasnu ba dootul laal suuf na yaa di maam làmp ci fii kaw suuf tabaski gi ay xari xaaf yu ñuy yéem ngay joxe addiya toftal ca gëleem bu nga dal di fob sa gat yaa defar ko ba mu sell nga muur ca morso ya te boo joxee ndigal ñu dal di soufflé si kar sa jolli gaañe dal di jiitle seex borom Mbawor Faal yaa doon mboot ya fa Mbawor ak Gébu Faal mat nga sëriñ giñ naan ni di Lamp Faal. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi jàkkaarloo ak ñun ñoo leen nuyu baax te di leen ziar ñoo ngi jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar di ñaan mu yàgg fi loolu tànn ko wér. waaye di ñaanal bu baax Serigne Cheikh Jëmm Fall mu yàgg fi loolu tànd ko bu wér di ñaanal bu baax Serigne Cheikh Fall Mbawor mi nga xam ne tey jii liggéey bu tedd bi mu liggéey te àddina bépp seere ko Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke muy xarit tabaski yi nga xamante ne bii cosaan la ci yoonu Baye Fall euh, noo ngi ñaan liggéey bu yàgg Fall sama borom defal la ci ak wér ak kattan euh, ci barkeb ki nga koy jëfal muy sëriñ Touba Cheikhul Khadim euh, di yëkkati suñuy kaddu rek kaddu yoo xamante ne bii. dañ daan def ni ni nga xam ne noonu lañ ko daan defee muy toog ci kanamu sëriñ bi ubbi kàddu gi waaye tamit seq ko sunu mbokk taalibe muy sëñ Arouna Sylla mii nga xam ne moom sunu jëwriñ la euh, nekk itam ci Zik FM waaye tamit di liggéey liggéey bu am solo ci Serigne Touba Cheikhul Khadim ak mbooleem mbokki média yi fi teew ñëpp Lamp Fall Serafal point com ñoom ñëpp di leen ziar bu baax a baax a baax di wax ne euh, sëriñ bi tey sunu xol sedd na bu baax. Euh, ci kàddu yi nga xamante ne bii yëkkati nga ko ci kanamu Cheikh Sidi Mokhtar euh, te sëriñ bi itam euh, am kàddu yum jotal ci jëmale ko sa jëmm ji ak mbooleem ñi taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoo ànd ci liggéey bi di wax ne yàlla nañ ko fekk ay déwéni déwéni déwén xam naa sëñ Arouna dañ lay bàyyee kàddu gi ñu ubbil sëriñ bi sëriñ bi wax ñu lan mooy cosaanu liggéey bi ndax miin nañ ci Baay Faal yi Tabaski gu jot ñu jël ay xar yu baax comme xar yi nga xam ne tey yóbbu nga ko sëñ bi muy ay tànneef te tey foo jaar rek nit ñi xam ne lii moom kii ki ko joxe eh, jox na li gën ci li gën jël na ko jox ko Serigne Touba Cheikhul Khadim te muy cosaan loo xamante ne bii wax nañ ne maam Cheikh Ibrahima Fall ko ku tedd ki santoon nga xamante ne bii tam loolu mooy cosaanu ndog yi nga xam ne ndog yi ni nga koy defe saa su ne at mu jot di togg ay ndab di ko yóbbul Serigne Touba eh, ci ak njabootu Serigne Touba gi yëpp loolu mooy cosaanul tabaski yi itam nga xamante ne bii ku tedd ki Cheikhul Khadim moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima maa ngi toxalee ci sëñ Bay Ngiraan mu ne ku ñu wax Baye Lamine Diop jaxeer mas na ko jox leetar boo xam daf ko ne Cheikh Ibrahima ko bindoon di ko laaj sëriñ bi ndax sañ na maa tabaski waaye la ko sëriñ bi tontu mooy bu ngeen demee ne leen Ibra Fall lu fa ne ciy xar na ko dàq indil ma su jógee ci jullikaay lu mu fekk rendi ko kon loolu mooy sababus ñuy war a yóbbu tabaski yi te wax dégg nañ sa kàddu ba tàyyi nga wax ne ñun sañu ñoo rendum tabaski te te te suñu kilifa euh, yóbbu luñ ko ay tabaski dégg nañ nga wax ne boo xasee jox sa sëriñ tabaski sa kilifa tabaski keccax sax boo ko amee baax na loolu day wane ne kon yow moom eh, lépp jox nga ko ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim. Euh, sëñ Maamu ni nga ko waxee sunu mag nga sunu jëwrin nga sunu lépp nga moo tax bi ñu ñëwee rek ñu bàyyee la kàddu gi daanaka sax mënoon nañoo bañ a yëkkati kàddu ndax euh, la lay ubbi bi yëpp macha allah matale nga ko. kon du ñu def lu dul rek sant sëriñ bi tey sant yàlla bu baax bi ñu fekkee liggéey bu am solo bii nga xam ne jàpp naa ne ku ko teewee rek tey sa yaram araamal na sawar ndax euh, doon na liggéey boo xam ne sedd na xolub Seex Sidil Maxtaar te yaakaar naa sëriñ bi bu xolam seddee xolub sëriñ tubaa dina sedd te xolub sëriñ tubaa bu seddee xolub yonent bi sedd te bu su yonent bi bégee sunu borom subhaanahu wa taala kon su yàlla na nañu sunu borom dugal ci biir mbégte moomu euh, di rafetlu kàddu yi nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko fee ca kër Cheikh Sidil Maxtaar muy kàddu yoo xam ne kàddu yu am solo la euh, lii dafa am solo ndax euh, taal sëriñ bu tegee ci yoon wi mu war a tege day soññ ay ay taalibe mm-hmm. moo tax sëriñ bi bi mu jaaree ci yoon wi di dem mboolem ku mu dajeel oto yeeg ñëpp da ngay gis ñu taxaw di filmer di ñaanal Serigne Cheikh Fall Mbaor mu yàgg fi. nga xam ne man jël naa ko émission boo xam ne ba léegi ay mbokk dañuy woo damay dañ may woo di ma sàkku ngir ma delloo siwaat ko ba tax ma delloo si siwaat ko waaye ba léegi doyalaguñ ci mu mel ni Serigne bi moom ba léegi duñu duñu doyal ci moom ni mu ko waxee mu doon loo xam ne it wéy juróom sëñ Aliou Fall Mbaor moo ko dooroon ba 1978 mu bàyyi koo fi sëriñ bi di ko wéyal mu mel ni kon ab liggéey la boo xam ne sëriñ euh, wéyjuram moo ko sosoon moom it mu ñëw sof ko dool la ci it lu am solo muy gëléem goo xam ne at mu jot dana ko ci dool li muy liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la boole ci ay xéewal yoo xam ne it dañ koy toog ba mu jekk euh, soxna yi yanu ko ñu ànd ak taalibe yi ak sëriñ bi dem yóbbu ko li ma ci gën a neexit mooy sëriñ bi bi mu ko defee ba noppi mënoon naa daal di toog yabal ay njaboot gi ñu yóbbu ko waaye daa daa di dox ba jumaay tubaa ànd ak ñoom ba jàkkaarloog sëriñ bi loolu yi nekk mbir moo xam ne mbir mu am solo la kon daal sëñ bi du ñu def lu dul di la sant te di la ñaanal di yeesal suñu kóllëre di yeesal tamit suñu digg ak yow di sàkku yin nga ñaanal nu bu baax su borom gën ñoo defal taw tawfeex bu baax xam naa kon kàddu yi dañ la koy daal di jébbal rek comme ni ko sëñ Mamoun waxee su ko defee rek incha allah muy kaddu yoo xam ne kaddu yu soññee la wax it ne la sababu bis bi dellu siwaat ci rek incha allah ci cosaan bi. ñu ngi leen nuyu yéen mbokk yëpp ak taalib yëpp ak xarit yeeg ak yéen waa rajo bi di leen sant ci seen i taxawaay ak seen i ak seen bëgg lu baax ndax daanaka li ñuy liggéey ci yoonu sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima fu lislaam jóge yéen a ngi koy feeñal di ci def taxawaay yu rafet te loolu lu jafe woon la dañuy fekk fu ñu waroon a génnee lu baax heure bañ ko waroon a defee ñi di ci def leneen te te sëñ bi daa wax ne genn noogu jóge ci nit iskul nafsin yaxruju min rajuli jawharatan naafisatan lam tanjali la wax ne genn noogu jóge ci oxygène nit ki dagg na daggeetu wurusum dagge ci daggeetu or wum jële ci gaalam sànni ko ci mbedd mi mu dootu del si boo ci defut lu baax rek mhm. te da ngay di koo dig dara donc euh, weer wala ñaari fan wala ñetti fan mu yàkkamti loola te bu xamal ne loola di jël ci dundam dana xam ne bañ na fi loolaa ko euh, dund gee gën ci moom la mu yàkkamti mhm. mu génn ci waxtam mhm. ba tax na nag sëñ Blaat dana wax naan sëñ Touba waxtu mu ne da koy sëf ba mu diis kuy dem mu ne balaa dem dana siir sar kon nag dund gee mëtt a fooyee nit ñi daal dañoo war sax ci jub sax ci kër gi sax ci baax Cheikh Ibrahima nag ci loolu la saxoon ba moo tax tabaski yi mu di ko def xam nga waxan naa la ci kii na la tabaski moom yàllaa ci seet gëmuk jaam bi rek ak teel bi ñooy aj màkk ba tey ca loola la jaare ndax maam sunu Ibrahima moo tuddoon xalilullahi di xaritu yonent bi mu mu ànd nag moom te ci ndigalit la saxan ak moom ba màkk googu am ndax soxnaam sañuy wax aajara daa am ko mu nekkalan yor ko ba yàgg mu may ko maam sunu Ibrahima ba mu ko ko joxee nag te bu fekk déet kenn na ko am may ko may ko maam sunu maam sunu Ibrahima moom Aajara léegi ba mu ko ko joxee te kooku amul woon nag moom doom nag bi bi Aajara amee di ëmbee kooku da koo daal di siis daal. di ko féere ba ba génne lu ko. maam sunu Ibrahima génne ko nag ba ci àll bu boobu. tund yaag xur yaag kàmb yaag nga xam ne bi waa din xayra si sarhin baytikul mahram jooju ñu alxuraan di wax xur woo xam ne amul mbay dara ñuru fa. di tund ki xur yi di doj képp di kekk di kekk nga xam ne léegi climatiseur yeeg courant ba tax muy sedd waaye màkk moom moo gën a tàng ci réew yi mm-hmm. jàmm joojeen waaye te teewul mu nangu ndigal ba noppi di jigéen nag nangu faa nekk mm-hmm. léegi nag ba mu ko ne ma ko man ndigal suñu borom laa cam mu ko yàlla digle moom nangu naa ko te lu yàlla lu ma yàlla teg at ah, danaa ko attan danaa ko jëm yenu mm-hmm. ba mu fa nekkee ke kee gane addina nag uh, maam sunu kii aajara uh, Ismaayla gane ñëw léegi maam sunu Ibrahima kii Aajara neñ mooy lool yi ñuy defee Safa ak Marwa ak sànni jamra ak yooyu yëpp ci la jaare <laughs> ndax ba eh, ba Ismaïla ga nekkee nekk na fa ba mar te ma kee amagul ndox. Mm-hmm. nee nag mu gis ah, ni ñuy def ni ñaan ah, jinne day tegal doom xam nga godron yi sax bu bu tisbaaree ci cooron yi da ngay séen fi biir rek defe na daa taa. Mm-hmm. boo demee àllu waalo bi da koy am fi xorom. Mm-hmm. da ngay séen foo defee ne dégg la a ndoxo fa ne boo demee doo fekk dara nga séenaat ko feneen moom la aajara doon def. bu xoolee ca safaa defee ne ndoxo fa nekk. mu daw baag fa doo dafaa génnaat ndax damay seen muy melax ak leer mu jaabante ko juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon yim ko jaa jaabante woon mooy juróom-ñaari yoon yi ñuy dox safa ak marwa te inna safa wal marwa min saa'irillaahi la alxuraan wax ci li yàlla fonkal boppam boole ko ci aj la bokk léegi nag kookee ba mu fa ganee àddina nag yàlla def tiis la ak njàqara la sonal ko fa ismaila tëddan di wéqee ko rasu këddaam yooyu yàlla bënn cëb teen nga xam ne ndox moomee ca la xeele ba dañoo mujj ne dalal dalal mhm. te bu ko suñ borom waxu doon day wal ba wër addina ji mhm. te leen ciy doy tegtal mooy boo boobee amee ba tey mhm. fii dëkk boo fa dem bu màggal ga xummee wala gàmmu ga ñu ne ba jeex na da nga cee a sangu <laughs> te ñii ñëpp danañ ci maase sangu ku ne duy ci di ca naan it boo demee da nga ciy naan ba sa biir fee sangu ci ñu ci bari bu ñu liir bu lañ fay moom la ñuy di naan te boo fa jógee itam da ci duy yóbbaale yuti koy barkeel ndax ñiy aji ñëpp koo ci bu ñëwee duyal lam sam-sam tegal mooy mooy luñ la yit lu jóge màkk dëkk fa ndax fi ne tàndarma ja mën naa jóge Égypte wala feneen mhm. course yi Iran koy defar mhm. yére yi feneen nañ koy raab bi wëttin wu mhm. ndax du àll buy ñor wëttin sam-sam bàyyi la fa wér te lu këddaam moomee ca la loolee bënne léegi nag ba Ismaayila demee bay mag Ibrahima bëgg ko lool ndax xam nga mag mu dem ba bëgg am lu jege ñaar téeméer at moo doom mm-hmm. mu bëgg ko lool Iblis nag ne sun borom ki ngay wax xalilullaay de mm-hmm. sa bi de sa néeg ba keneen dëkk na ci xam nga mooy néeg mm-hmm. mooy néegub yàlla ci nit nahnu aqrabu min min hablil warid lay wax ne maa gën a jege seen buumu xol yi te ne fi muy dëkk ci nit mooy ca xol ba mu ko nee sa néeg ba keneen dëkk na ci mu ne ko kan mu ne ko doomam ja mu ne ko maa gënal doomam ja mu ne ko gën a lóog ko de mu ne ko danaa la ko masa a xamal ko masa mhm. a da nga ko mas seere bi léegi nag ba ba mu ko géntuloo Ibrahima ñetti yoon bu ci ne mu géntuloo ko mu war koo rendi bu ko Ibrahima a ci yàlla ba mu ñaari yoon ba ko ñetteel mu wax ko Ismaïl mhm. Ismaïl da ko xamal ne ko defal la yàlla sant mhm. fasda bi ma tu'maru satajiduni inshaa Allah mina saabiriin defal la la sant da nga ma fekk man ma bokk ca way muñ ya mhm. ba mu ko bëggee def nag mu a ko kon nag na nga takk bët yi ba ba du bañ maa xool mayin ma bañ laa xool te takk tànk yeeg loxo yi ba mu bañ a saalit te nañ na ngaanaay leen ñaw ba ba nga xam ne du am luñ ko nettali yéeri yét na mi di dellu ci moom <laughs> ba mu defee loolu nag mënal ko def euh, daas paakaam ba ba mu ñaw ñaw ay góob mm-hmm. ba mu ko jëmee ci baat ba suñu borom ne ne Jibril bu bu ko ma génn la ci kuréelu malaaka yi te moo jiite malaaka yi ndax fi ne inaan sal naa fii lil xadr maa rek maa lil xadr lay xadr xëy na mel seen xam da ngay dégg ministre yi ñi ñi ciy wax ministre yu a ne ministre simple simple am ministre simple am nga xam ne wa ruuxu jooju ci dugal nga xam ne ba mu jàllee nag eh, Mikaayil ak Isra saraafil ñoo ca toppaat boobee nag mu ne ko nag bu bu ko dee rek da nga génn ci kuréelu malaaka yi mhm. te dañoo wax ne jibril ba ko yàlla rëddloo addina fa màkka la taxaw fa kaaba ga ne wenn menn laafam la wëndeel ci adduna rek mooy géej yeeg ndox yeeg yëpp te ci menn laaf mee ko wër te ba muy naawee foofu nag di ko jël si te ne ko yóbbaaleel xar mi ron ko fa xar ma àjjana la jóge mhm. nga xam ne ci la mhm. mu ron fa xar ma ca maam sunu Ibrahima ba mu dowalee paaka bi kiir mu defee na daa ñëwut jël na ko feles ko ci weñ weñ nga dagg daal fa fële mhm. mu waat ko ci baat bi ba baat ba dëggul suñ ñi ron ñi ron fa mu xar mu rendi xar mi der ji toq ci lupp mu defee ne rey na ko mhm. tekki ba tam xool mu mu dim xar mhm. Ismaila tekki ba tam xool gisum xar nga xam ne maam sunu Ibrahima dana alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw man doon naa def sama digal borom xëy na moo ko soppi nii waaye man Ismaila la jàppan ne moom la Ismaayila ne mayit alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw diggante yàllaa ko yonentam yàquwul ci sama digg ak ñoom mm-hmm. mayit sant nday jenn alhamdulilahi rabbil alamin nag gannaaw sama digg ak sama borom kër yàquwul ñokkuma doom te sama digg ak yàlla sikkut hmm. sant naa yàlla jibril ne alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw kuréelu malaaka yi ko yàlla nar na jëlee te bu ko jëlee woon sawara lay dem hmm. génnu ci mooy ne ci puso bi mu mën a jam mooy ne ci dégg mu mën a jam hmm. mooy ne ci fo bi mu mën a tàkk mooy mu ne ci lii ren de mm-hmm. ndax Ibrahima bañ koy dugal ca sawara mm-hmm. xam ma nañ ko nangami at ba nga xam ne eh, diggam ak asamaan eh, am tan sax bu naawee tàngaayu dana ko ci daaneel mu mu tàkk mm-hmm. te bañ ca tàbbalee Ibrahima sun borom daa daal ba ko ca Namruus tàbbalee sun borom da ko ne yaa naaru koon yi bardan sawara yu seddal sawara yëpp sedd mu ne mu Ibrahima ba ba sawar wu jeqi sa bopp gisoo ci Ibrahima nga xam ne waxu la kon nga jeq nga tàkkaat te Ibrahima moom daa sedd ci moom ba waxa koosale nga xam ne kon sawara ilaay gi ci nekk mu tàng mm-hmm. waaye bu ci jógee dootu mën a la kenn te nga gis ñi daanu jël dong ñi da nga gis koy sikkar wala muy def leen ba daanu naan sart la koy wax te wàññiw ko dar paaka rendi get loola tax paaka ba dugg te dama leen da nga gis ku naan tul fii ba ne kekk mm. barki nga dégg ku naan dóor ko nangami jeeseeg nangami paaka tijalut mm-hmm. nga xam ne ilaahi ga yàlla def ca lañ ko jox ko moo ko moo ko may dëggut waaye ñe ñox yoo mi nga xam ne daanaka nooy la def boo boo doon làmb sax bu ko soloxo dalee mu mokk mm-hmm. te teewul moom la ngay naan naan tul ñoxam bi bu la ko mu jàll ilaahi rek yàlla gam ko ca roofa la tax mm-hmm. siburu yi ñuy moytu yëpp dañ naan moytu leen yooyu te fi ne yoo moom naan tul du tee mat nan sax ci ndigal dëgër rek loolee nag a waraloon tabaski yi léegi ba mu ko jotee xar ma nag suñu borom ne nag koo xam ne bëgg nga ma ma bëgg eh, koo xam ne eh, aw nga ci jub nekk naa ci sa xol mm-hmm. bu jotatee defal ni mm-hmm. yooyu bonam ko balaay wala asado bon wa asado tan kii la bu ngeen bëggee yàlla bëgg leen ngeen bëgg ko daal bëgg ngeen ma daal nu ngeen ma bëgg bëgg naa leen lu ko raw te maa leen dàq bëgg mhm. te koo soxla la caateka lu yees maa la raw mhm. te gannaaw moom ba nga xam fu mu toll <laughs> loolu nag la suñu borom wax foofu nga xam ne a waral tabaski te moom bu ca deen daanaka peuple yi duñ toll nii mhm. nekku ci ne sa doom koy def te kon eh, nit ñi duñ bari <laughs> rijaalan noonu mu ko suhuban wa qabaa'ila li ta'aarafu mhm. bu bu doon fii ne tabaski gu jot ndax li ciy dee ciy gàtt rek waaye dama leen naan boo ko seetet mhm. lenn lu yàlla bind lu mën a faagaagal morom mi amut mhm. fii ne tabaski dañ naan gàtt yi day manqué waaye lamb na la ciy teg nga ah ruu mënta rey morom ba jeexal ko fii ne sa tool geer goo fa ruujan bu bu déwee ne mu mën laa mbalee ndax dana toll na mu toll woon <laughs> dimanche jot boo demee daara defe ne nag yi jeex na bu bu bu dimanche ji topp ñëwee nga defe ne lii ci ngeer mi la jóge ginnaaw ci ndigal yàlla ay farata rek waaye leen yàlla lu morom ma mën a yàq te yàlla ënd ju mënta nekk eh, jërëjëf eh, sëriñ bi mm-hmm. macha allah ci kàddu yu am solo yi mm-hmm. eh, leeral nga nu kon cosaanul tabaski mm-hmm. ak taxawaayu maanaam jullit bi li ko ci war Ibrahima ba ko ba ko Firawna ba ko Iblis waxee loolu da koo sànni juróom da koo dóor juróom ñaari doj ba mu ko waxee aajara mu dóor ko juróom-ñaar doj ba ko waxee ismaila mu dóor ko juróom-ñaar doj mooy sànni jamra ba ñuy def ca Mina mhm. ndax jamratul ula am ak wusta ak aqaba mooy <laughs> Ibrahima Fall moom euh, dafa dégg loolu ndax mel ni taxawaayam ci tabaski euh, gis nañ ne euh, li cosaan la waaye jamono ji naka la baay Fall yi war a mën war a dundee wàccaayu tabaski comme nii nga xamante ne bi tey ànd nga ak mbooloo mépp dem jébal liggéey bu toll nii Cheikh Sidi Mokhtar ndax yonante bi ci boppam ba mu koy rañaanloo ba mu daataay gi da ko na jébalul mun la rabil alamin te jébalu naa ci yàlla te boobaat faman aslam fa awlaaka taara rasdan ku jébalu gore nga jub alxaasitu na fa kaanu la jaanam ataban ko ku def loolu nag na nga xam ne ca matt ma ñuy xambe sawara ca nga bokk te dama leen fi ne jekki ba naan damay nekk bay mag soog a jubag damay nekk bay mag a baax daal ne fa inna saa alaamatul ba ërsa nga ma soog a baax daal ne mandargam gecc la te booba seytaane jekku na la ndax dañoo wax ne daa waaju da daan jaamu yàlla du wacci waxtu dara musu raw ba am bis feram na jibril iblis dajeeg moom fi béréb doon màggat gu jigéen daal di koy tàppaas waa ji kii ko mu yenu ko dóor fi suuf daal di toog ci toog ci dënd bi tey ci put gi génne génne paaka asaatu ngan ko ko taalal ko teg ci deq ci put gi kooka yuuxu ma ne ko ah daanaka fanweeri at yi nga fi nar a dundaat day tee maray la dama xam ne xale bu góor bu toll ne ñëpp bëgg la daa maray la du farat daal koy bàyyi waa ji jéem a nak nakal mu yonawaat ko dóor fi su mu xam ne kii dooleem ji du doole nit kese waaye fi ne mu yettal na ko bunt ndax ba mu fa jógee mu ne nag moom gannaaw nar naa am fan weeri at nag day fo ci fan fukki at yeeg juróom lu ko neex bu bu bu yu mujjee desee mu tàmbal te fanweeri at yi ñu ko wax ñetti fan la yum dese woon at fan bu ne ko ko mat xam ne jaam na yàlla ba sonn ba noppi ci ci ci kéefar la mujj loo tax nag jaamu yàlla da nga ciy sax dëkk ci dama leen ne ne jaamu yàlla moom mbayum dërëyam boo nawee la nga fa la nga fa def mbaa la nga fa roose boo fa gëjee fekk fa lu lax ndax fi ne julli yi dong lañ la ci woo ñett juróom yoon ci bi fajar tisbaar takkusaan timis gee te boo ci wàcc boo bëggee indiwaat morom a day lank da ngay fay soog cee def bor du am rek moom borom bitig yàlla leen ci jiitu <laughs> kon ñi nga xam ne dañ na ay Baay faa lañ ba pare te ñoom tabaski yi ñuy rey ci seen i kër lañ gën a fonk ci muy jox sëñ bi moom nan la leen sëñ bi di wax xam nga loolu moo dul dëgg ndax Ibrahima ma ñuy roy te dama ne ittabi millata Ibrahima anifan la ko wa ma kaana minal musrikiin ba yonent bi doxat suñu borom da ko ne jaaral na ci ngirum Ibrahima ndax mos sa bokk ci way bokkaale nun ñi tam Ibrahima lan dajal te Ibrahima la si wa faala wax moom am na fréquence am na réseau am tonalité am crédit kon nag lu mu warta danañ ko wuyu moom diggam ak yàlla lu ñuy yebal keneen dagge xal dugg xaloo du def dagge xiloo lay def rek ndax toujours mi ngi ci heure <laughs> moo tax nag xam nga bëgg a defal sa bopp tey fi ne ñi nga defee ne dañuy tëbal ki seen bopp sax defuñu ko ndax suñu soxna la ñuy àndal ba daral ga moo naan mii bëgg nga xam ne yow defatoo bëgg yàlla sa bëgg jabar ngay def <laughs> man nag dama leen naan tabaski moom bu fa keccax sësee mbaa géej mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa aw bayit ma def ko hmm. sëñ bi daal lay sama première bu mooy li ma ñor bu noppee nag lu ñëwaat baax na waaw moom na muy nga war a jaar bëgg ne Baye Fall nga ne da ngay topp Baye Fall moom bàyyi tere li tax waxtu yi juróom ak woor nga teg ko ne la la dox si digg moom da nga da nga koy teg si biir mooy fa mooy sa farata li la fi ne li li tee naaj wa tànk ci mooy dàll yi nga soldi boo sumee dàll nag doxee tànku neen moom bu ragal te naaj sëñ bi gis nañ jamono ji itam fi jamono ji toll xam naa dinañ eh, ñuy wax communication moom dafa commencé yëngal jamono ndax fan yi dégg nañ yu bari xew. Eh, te da boo dee xool daanaka loolu moo koy sabab. Eh, lan lañu ci sëñ bi mën a dénk ngir ñu man cee waajal sunu bopp. bala ñoo agsi ci yi nga xam ni ay xat-xati jamono la ci jamono ji ñu toll. communication yi de man li ma ci gën a xam mooy yow nga defar sa sa bopp rek fexe ba am sa sa fulay bopp fëkk bañ laa yóbbaale. ndax fi ne gimiñ man man nga ne du ma wax lu dul dëgg waaye sama noppi du dégg lu dul dëgg mu ne su ko wax. <laughs> communiqué nag ci nopp lay dem waaye fexe ba lam lay sant nga bañ koo jëfee lam lay wan nga bañ koo gis daal di farat lañ la saxla woon ci lu baax daal doo ko foo ci di jëm ci leen communiqué bi bari na waaye lépp lu bari taxut a baax wala kenn ak sara naa sa jenn ju yàlla teg lu mu gën a amul xalilul maa taskuroo nag xalilul maa nangam lay la muy tànn daal la ca gën a néew mooy li ko ciy gën a te fii ne boo demee ci àll bet lay faj soxla yi ci ëllëg te tool ba lay lay nekk te tool baat mbooy gaa ko gën a yaatu Mm, xam nga wala ki nag sara naa salaax la mën waaye fii ne lépp ci àll bi lépp doon it ay mbooy la ba tooy bi nag bala nga ko am da wuti jiw nangoo ruuj nangoo gor nangoo béy di di muñ di woor woor ci nawet bi ne ci àll ba da ngay réer ci nawet bi daal mooy tax noor bi soxla soo bëgg a faj ko waaye bu fekkee nawet bi ker gu la gën a dàq nga nga nga wot sax basang yóbbu ci boo ëllëgee looy daanaka lu mu la seral ci kii bi daal dama ne boo loo bañ a tawte ci tool yi daal bu cooroo ne da nga ñàkk lu ñu toll ci wut loo lekk. ñu lay sant bu baax ci kàddu yu am solo yi. xam naa rek euh, ngir dellu dellusiwaat ci tabaski bi. wala boog dellu dellusiwaat ci euh, lenn rek ci nu ko noo xam ne noonu la ko sa waajur daan defee muy sëñ Aliou Fall Mbawar. ak tamit euh, liggéey bi ci jamono yooyu ci ci yan anam la ko daan defee ak ci kan la ko daan teg ci loxoom. sëñ sëñ Aliou de bi fi Cheikh Ibrahima ci loxoom la ko daan teg bi mu fi jógee daan ko teg ci loxo sëñ Mor Talla ñi ko teg bi mu fi jógee ay sëñ Ablaye ku fi toogal Cheikh Ibrahima daal jaarale leen lépp liggéeyam ci yow sëñ Fall na ko ko mujj woo fii moom ne ko damaa bëgg nga toog fii ci Touba ndax lii pàkk bi toolu soxna Awa bu saawoon maa ko defoon addi Cheikh Ibrahima Mm, sëñ Moustapha Fall dëkkan na fi sëñ moo dëkk sëñ Ablaye mii dëkkan na fi waaye sëñ bee ko mujj ne na na sëñ Ablaye féeti njaareem nga féeti fii mm. dama ko def addiya Cheikh Ibra mm. damaa bëgg mayetuma la mbawar gi waxuma la mbawar waaye gébb gi mayetuma la nga dem fi damaa bëgg nga toog fii ci Touba di samam sëñ dama ko doon def xalifa ak mag moom waaye léegi yow laa def samam Cheikh Ibra yaa ko yor may toog fii di sam sëñ nga dem fi xam nga sëñ Touba Cheikh a toujours dañ daan fokk da ngay am fence ak neutre daal ñooy daje eteesal mën a génn la ilaha illallah <laughs> te rabbul masraqayni wal maxribayni lay wax da ngay fee penkook soow foofu xam kër Cheikh Ibra ko soow la féete kër Sëñ Tuubaa te mooy faas ak nëtër rek nin ko féetee fii moom te am na jamono yoo xam ne sëñ du borom dër bi am na jamono yu nekk Ndakaaru mm. am na fa xew-xew yu fa xewoon ñu war a julli ak it mm-hmm. mu fanaanee taw yendoo ko ba nga xam ne dégg naa am na ci sax euh, ab perantal bu bu bu ndox mi yóbbaale ca canal boobu ci Gueule-Tapée boori Gueule-Tapée googu. Mm-hmm. te neeñ bi mu xëyee donc daa daa daa duj ci lal bi jublu soow. Mm-hmm. ba mu yàgg kii yëf yi xitti ba ñëpp jaaxle nee ñu nee ñu Pël Fuuta yi sax seen këriñ la doon wal mm-hmm. ba mu yàgg mu ne xanaa doom Ibra Fall daa ne ci dëkk bi Cheikh Ibra te boobu suñu Aliou nga fa ñu ne ko waaw nee ñu mu woolu ko bi sëñ bi ñëwee ne da ko fekk mu jublu soow mhm. nee muy wax ak moom di wëlbatiku ndànk-ndànk mhm. muy wax ak moom ne ndox mi wàññi ba biñu jàkkaarloo mu jox ko loxo la ndox mi fay la ndox mi ne moo tax man leen nag diggante Cheikh Ibra ak sëñ Touba day mel ne almet ak fi ngay ak baree almet ak fi koy fi koy fi nga koy wokk mhm. bañ déjeegul daal daay takkagut te mboot ak baatin moom eh. dama leen fii ne almet gi donc kafaal mi koy liggéey doom bi ngay kos mu fay Mm-hmm. ak bii togg añ mm-hmm. ak bii la ko daay ak bii taal kër gi borom usine kafaal xamu ko ci fii ne sa carte mm-hmm. seen carte mémoire yëeg kii eh, yi ngeen di def ci eh, eh, kii bi rek téléphone yi portable rek fii ne bi numéro beeg yëpp moo carte yëpp ko bokkale mhm. te da ngay am bis bu ñu la ne cent pour cent la bis bu <laughs> dem ba jagale benn bis ne ko may naa lii kon nag gannaaw ñooñaa mën a lu ñuy maye mhm. as ci suñu borom suñu borom it nit ne yow mu def ci moom lu nekkul ci yow te dama ne yàlla ak courant bi ak seytaane mhm. fuñ kuñ ci dajal da nga xam ne morom nekku ko la yàllay def ci nit ki moom ba muy wàll yi wala mu di mbaa muy leneen boo dalee dalee ci koom da nga xam ne dal nga foo warul na dal dof bi rab jàppit ba muy kadd kaddee ka sa sawi siré ma ka mhm. eh, eh, defi yee boo ko noon kaay moom dëkk bi dana xam ne tëlatu ko daje nag ku mu warta dajal mhm. courant bi waxtu woo demee jaawale fii lu station beeg liñ ko war a wéeri bu tooyee nga weer ko ci da nga xam ne fa nga ko teg lu eh, jërëjëf sëñ bi xam naa man li ma bëggoon laaj rek moom mooy gis nañ eh, ñoo xamante ne bii jamono yi signal yu Fall Mboor dañoo àndoon nag moom di liggéey te tey ji gis nañ seenu njaboot ba tey ñi ngi fi sëriñ bi eh, te it nañ ne na nga xam ni neew la seeni way jur doon liggéey ci biir kër gi ba tey eh, teggiwuñ seen tànk dañoo gis ne saa ne dañ koy gën a saxal ràññee nañ ci ñu bari sax tey ci liggéey bi ñu indi fi liggéey boo xamante ne bii ku leen gis xam ne ñii moom ni ko sëriñ bi bëgg noonu lañ ko defee muy yaral seen bopp ba sama borom dogal toll na ko sëriñ bi bëggee ñu indi ko ñooñu yan kàddu la leen sëriñ bi eh, soññ yooyu de du ma cee sant leen gërëm leen te xam ne liñ leen fi bàyyi woon ña nga ca képp hmm. gannaaw seeni waajur na àndal nag sëñ bi ñi gis nañ doon def na sëñ bi doon def ñi gis seeni waajur di ko defan ak moom bi fi bi fi ñooñu bàyyi ko sëñ bi nekkatu feet la lañ sëñ bi nu fi bàyyi seeni waa yàlla bàyyi nu fi boole leen boole nu fekk seeni njaboot ñi gis la seeni bàyyi doon def yoon wi doon jaar ci lañu jaar xam nga doomi chef de gaar moom bis bu fa bàyyam nekkatu danga xam ne gaar bi terrain bi moo taxan ñu teg fi bàyyam ci raay bi la saxaar gi daan daw bi yëkki yee du leen faatuwaal du leen yóbbu barsax bu jàngee la bàyyam jàng ngeen war da nga dem ci kas eh, eh, ñu ne sëñ Aliou Fall Mbor maam Cheikh Ibrahima Fall eh, joxe na ko ndar mu doon jàng ci école bi ñenn ak doomi Cheikh Ibrahima Fall yi ndax sëñ mën nañu wax lan mooy sababus Cheikh Ibrahima jëloon doomam dugal ko ci école waaw Cheikh Ibrahima dugal na ko moom nekkan na ci sëñ Assane na ci sëñ Ablaye na ci waaye boobu jàngal na fi alxuraan ba noppi bañ jàngee ba noppi nag moom daa demoon ndar boole ko wàkkuñu wax sëñ kër Diop mu ne ci këram moo ba njëkk am machine ñaw ci Sénégal daana ñawal sëñ mag bi ay yére mm-hmm. léegi nag fa la ko yebaloon muy jàng xam-xam ba mu fay jàng ba yàgg nag ñiy laaj ci ay école fils de chef mm-hmm. Cheikh Ibra joxe ko xam nga ma nga ndar école ba foofu la ne mm-hmm. moom la fa njëkk na joxe mu joxe ko fa nag boobee nag mu bind ko lettre di ko laaj na ko man li nga ma nasaraan bi nga ma jox daal xaw na maa jaaxal tey sama ndigal sëñ ba tontu ko ne ko ne yow xam naa ne nasaraan mënut a lekk sa xol ca la ñu continué woon njàng moom ba mu fa noppee ay Samba Cam Ka Jaw ak Mor Lii Saak Sambu ñu bari ñu mu fa bokk nekk ak may sa mbay sall bañ ñi deen fali chef de canton dañu ne man jànguma ngir falu dara ndigal li ma fi digaleen li ma fi yebalan ci borom laay del te nee nekk na fa ba pest bi ñëw jàngoro yu bari xew mu bind Cheikh Ibrahima lettre ne ko daa bari ñuy ñu ñëwaat foofu de te ma bañ a ñëw ma mbay bañ nga defeen damaa damaa dëgër bopp te itam damaa xam ne lu yàllay tege nag ku kuy daw kuy nëbbutu yàlla fooy làqu ne Cheikh Ibrahima ne ko na nga toog buleen leen bu ko daw bu ko ñuux nga xam ne fa ne ba mu jeex am fa kër gam neen sax bari nañu fa la ñu daan làqu si mhm. ba loole jàllee nag mu ne leen man jànguma ngir falo dara ca ma jàngalan laay dellu sëñ bi Cheikh yebal ko mbaa war gi nekkoon diggante ndargo gi am na nu ma fa def ba Thiès ruqusoos yi ma fi dese woon sëñ sëñ Fallou Fall moom fa jëkkante yebal da ko yebal ci géej gi mu wàccub liggéey nga xam ne jokkoo yooyu sëñ Moustapha Fall ko féete la moom la sëñ Fallou dénkan yëf yi dégg naa ba mu demee mu ne ko ah, yow la Fallou yow la battale kiyam yi gannaaw ma xam moo doon taaw seex ñu ne waaw mu ne ah, kii ak rey doon la de na <laughs> ma yàlla baal loolu seex yi doo xam ne ci sëñ Moustapha léegi ba sëñ Fallou demee ci guerre mm-hmm. jël si na fi benn yoon te da doon jël si bataillon buy dem ba mu ñëwee si Cheikh Ibrahima ne ko Fallou waroo woon a ñëw di nax genn ñibbi si nga amoon te ca la mujj ki te dégg na am na jamono yi ci temps yi guerre Allemagne bi ñi ko jiite woon ak moom dong bi mu bis mu am ak ñoom erreur daa daa di fippu ci gaal gi ñu nekkan daa daal di cëppeelu ci ndox mi ña ko Cheikh boole len yëpp ñi cëppeelu ci di ci waaxu tubaab yi gis nga xam ne dégg naa dañu leen mujj jéem a d'accord ak ñoom jubóog ñoom ba fii ne ba bañ ba ba yëfee lu mu waxati ñaand caag moom kon nga xam ne deman na ngir lee waaye te it moom deman na Cheikh Ibrahima ngorom ak garanté la ci jubluwoon rek gannaaw suñ tubaab da koo laaj eh, ay soldar ñett téeméer soldaar mu ne du joxe doomi jaambur yi wàcc doomam ca la boole waale woon doom te xam ga fi ne bari na ci naar yeeg fu bari bi leen tubaab yi laaj ay kii seen jaam lañ joxe ji woon hmm. léegi nag jaam yaa del si yilifaat leen <laughs> Seex Ibra nag loolu la doon bañal bopp waaw loolu laal nag ba mu ci jógee nag mu yebal ko foofii hmm. nee na mbawoor googee ma nekkan hmm. ñetti chef de canton yi ma fa nekk bi nekk Ganjool ak bi nekk Mbul ak fee nee bu ci bala ngaa am dara ci nit daaj ngeen sa ñeenti gétt yooyu koo laaj bu la da ko ca yeew jaaxaanal ko ca naaji ak di leen duma ñi ngay dégg seen i yuux nga soog a jël seen àll te nee moom nag dem daan am ca ñoom ku ci ñëw fekk génnagut dañuy toog fa bitti ba mu ñu jox ko boole ko seen i rango tey te njàng um, bu rëy bu France indi ko fi nga xam ne sëñ ko tegan dénk ko sëñ Aliou bis bu ñëwee mu jàngal ko ci ñaari paas ñett sëñ bi ci këyit dem léeg-léeg sax dana ci bu ci eggee fu mu dana dem Daaru Salaam ne ko ma dem kër Modou Mamoun te ñëw bu jógee ci sëñ Modou Mamoun dellusiwaat hmm. sëñ bi ki yàllaat ko ca te fii am na ca yoo xam ne nga xam ne ñi fi di encan xam nga leen ñoo xam ne fii ne seen i njaboot léegi ay ay la lañu mak ci kii bi te dañuy mujj naan eh, eh, diw war nañu ndax rallié na ca sëñ ba mm-hmm. waaw nga xam ne moom daa daa mujj baytin jàpp ko ba mu nangoo doon taalibe waaye la ko fi jëkk na indi du loolu mm-hmm. ah <laughs> xam nga dañ naan ganaar du topp kuy tax ne bàyyi koy bojji waaye kii boo ji waxtu bu bëggee cere ganaar it bu ganaar dëggu na ci heure. da dégg sëriñ bi léegi bu ñu waxee ci jamono ji. Euh, suñ tuddee suñ Cheikh Fall Mor ñu ne oh kook sëriñ la. suñ tuddee yenn kilifa ñu ne ah. léegi nag bëgg nañ xam euh, maanaam liñ naan doomi diw ñu fexe ba maanaam nit ki nan lay fexe ba doon diw nan lay fexe maanaam ba doon diw te bañ a doon doomi diw. loolu nga wax nag moom daa koo xamul ndax fañ naan est-ce que fañ naan ah fekk mu ci leen <laughs> <laughs> nit daal eh, waman tabium bi ihsaanin ilaa yawmi diin daal la suñu borom wax yoon ngir yu mu xaalan jaarale ci mag ñu baax ñi dane ku leen topp egg ilaa yawmi diin fekk fii xam nga raay bi biñ koy indee tubaab léegi ña ko gasa nekkatuñ fi seeni seen seen i sëtëki seen i sëtaata ci waaye bu màggal jotee ku mujj a juddoo ca Dakar ab liir sax ndeyam dana ko boot indaale tubaab waaye jaar ci yoon wi tax fi ne nag da ngay dégg ku naan dama leen na fi ne ndox suuf yi lugg seen maam yaa leen di lugg mm. jiit yi la seen maam mënan mën nañ ko mm-hmm. mel leen yu noonu dégg yi sax gu ko taxas goo la fi maamam daan jam mm. boo jaaree fam fam seqee dana la jamaat mm-hmm. waaye nag fii ne da ngay nit doo nga ciy doon ni waajuram manqué ko mm-hmm. boo déggee ñu ne guy dana juri dégg nag guy juriti dégg ku baax fi bàyyi ku bon. Eh, damay laaj ndax sëriñ dina politique ndax damaa gis sëriñ su bëri eh, bi ñuy dugg ci wàllu politique saa boo leen attaquer rek ñu ne Cheikh Ibra Fall politique nga woon na ca ndar te lañ dégg na Cheikh Ibra doon na ko def ca ndar lay laaj ndax li ak li ñu wooyee politique benn la. xam nga Cheikh Ibrahima moom booba balee sa ngalendoog ñooñoo fi nekkan mhm. te bëggan suñ mag bi ñibbisee tax mhm. dañ ko ne woon eh, da ngay da ngay caay wotee daa jot mhm. ñu ne ko da ngay wote mu ne leen wote wu ma damay wattu te suñu boo demee ifan wala ci archive yi da ngay gis fa mu bindan bindanteeg tubaab bi signé xamal leen ne suñ tubaab moom du koy xeex ak nit du koy lor nit du reyu mel leen du ganaar kon nag bu bakkanu di waxee noppi moom jiyaari boppam lay def te ci bakkanam la koy teg ñu mu ne leen nag moom mooy doon garante bi nga xam ne bu ñëwee fii lu ngeen dégg mu def ko nee bu nañ teg sëñ bi fee lu ñuy tege ñu teg ko ko xam nga kooku moom wóotewul woon te ke daa wax nag kooku ba kooku xamal ko ne ko moom waxtu moo gàñee sëñ bi dana ñibbisi te leetar yam doon bindanteeg ma am na ku ma xamal ne ma lébi door yañ tayle woon jox ko ke daan def yi maam fat Diop sayar ndey sëñ Aliou ndey sëñ Aliou sëñ Mortala ko moom léegi boo yooyee jaalee mu di ko delloo si maam Fat Diop da ko ne doy nga ma ndekuy Fat job kon looy takk ba mu ko ko joxee mu ne ko doy nga ma takkaay loolu la ko defal waaye fii ne ñam fa bàyyi woon daanaka li biroor jeexalatu leen hmm. waaw ah. xam dañ naan borom borom barrière ba ca Madina hmm. man leen yonente bi gën a seer or fi ngeen koy dàkkantal yonente bi ko gën fop hmm. ndax doji màkk yee gën a rëy suñu borom nee na ko naa la ko sa soppil eh, or ak jamaa mu ne ko bàyyi ma may jaam bu lay yaakaar léeg-léeg ma mos ci li natt yi ngay teg jaam yi léeg-léeg sa xéewal ma jot ci wayn sunu ko laa nasara asisan la ko wax maa tax innaa fatanaa laka asisan tedd daan julli ba wax yi neewi xadi eh, aysatu ne ko yow xanaa du yow la suñu borom waxal lool ci sóortu fatti mm-hmm. mu ne ko a ah, mu ne ko danga koo gëmul mu ko ku la defal lool ndax afala akoon abdun sakkoon mm-hmm. ku la defal lii ndax waroo dëkk ci di ko sant waaw mm-hmm. ah, te laa ngi sakkatum laa si dannakum la ah. feeg yaa ngi sant ñi de doo doole ñay politique nag politique boo ko tegee ci yoon woo xam ne luy xeetali nit ñi ak di leen dimbali ñi ba ci Senghor duggee ba bind leetar ba la tubaab wax naan koo ci rey juróomi nit lay doon buy dekkee nangam la ñu doon euh, te yéen tir à air lañ leen tuddoon na ne ci li ngeen di tiire te buñ jotee ci réew mi Sénégal tax ñu jot dama leen tubaab bi dañoo defoon Sénégal ganaar goo xam ne day dañoo defoon poulailler boo xam ne ganaar gu fi juddoo ñu reen di yóbbu France léegi nag dañ koo bëgg a soppi di leen jox élément pondos fi ne ganaar gu ci gu ci gu ci nen ko ne say ba sa sa baayu doom du la ko wax te waaye nen yi la ñuy tonni yóbbu nan wut ci dàq jàpp yi di am ci neni Sénégal yi kilifa daal mën di def na ci jiital diineem ak lislaamam te lam cey tegaate bu mu doon lu koy yàq gis kon daal sëñ bi gis na ne bii politique xew léegi moom d' accord sëñ bi d' accord déet bii xew man dama cee duggut bay xam ne mu demee léegi boo ne bii kaar neexut yow mi ci duggoon mu daw Ndakaaru bu fii yaa koy xam waaye man mi mu romb du ma xam nu mu mel waaw liñ ciy boole mooy sant leen rek yéen ñi sant taalibe ndax loolu yi ngeen di wax lépp taalibe yee ko def man defal mu def laay man mm-hmm. bàyyil mu bàyyi te yàlla dimbali noonu ba ñaare néew na lu ma ciy gis nit ci luñ koy tere ma di ko bàyyi loo mm-hmm. te liñ leen di sant ñu ngi koy def loolu la lan yàlla boole nag ñoom sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra mm-hmm. te dama leen na fii ne moom saxaar li man li liy dagg biyee ci moom lépp xam nañ ne ba xajuñ ci bopp kese ba wago yaa tax waaye boobu baat xam na ne lii ñu ko lonk na ko kon nag na saxaar gi fexe ba bay daw ci heure di dox am masuut ak gaas waalam yim mu war yëpp kay duggi nag dugg ci régulièrement aaw ci yoon fu ko defee daal lépp egg waaye foo fekk bopp bu raay saxaar wago bu raay ko fa nag jur gu wutib sàmm gu ne da ngay baña a róor waaye fii ne bu ñu jekkee ba bëyi réunion ba ne sàmm sàmm saa ngi róor nag kuñ ci jàppati yaa xam naa am na ko ma mas a laaj. Cheikh daa waxat ne. nee ñu wax na ko sëñ bi wax ko. Hmm. dane ko sukk ne la jébbalaal sama bopp àddina ak àllaaxira hmm. nee bu siggee ba ba saa taxaw bul bu mu gisati lu mu la gën a loo ko gën a bëgg lu dul yàlla. Hmm. xam nga suñ mag bi am na ko ko mas yut sa ay pañe guro yu bari mu ne ko yow sa lii xër nga ci loo jublu mu ne ko damaa dégg ne guro sag bëgg. lam fekkan mu sex ko da ko yàbbi galaxndiku ne fu gura ne ci kër gi nañ ko indi leeñum leñ tàbbal ko ci waat ci yàlla ne dootu ko dootu ko sex gannaaw am na lu ñuy dend léegi yàlla ci moom na fii mosuma ko génn <laughs> xam na sëñ bi nee na fi ba ñi fi jiit ñaar ñaar ñi fi jëkk ñëw nday maam mi ak nday sëñ tafaa ñoom je jàng naa ba noppi ba ñëw fi te mosuma dem Mbàkke daanaka hmm. waaw sëñ bi daal dama fi daan téye te attaayaal koog teggi kafeek ka sëñ Abdou Lahad ki sëñ Abdou Khadre ku fi ñëw maa leen daan tàngal magum magum sëñ Touba ak sëñ Saliou ñoom njabootu sëñ Touba gi daal ku fi mas a ñëw bari nañ la ngeen di wax fekke naa ko ne li cëpp na maa leen di xel la ñuy naan bu fa bu far dara nekkut guddi moom da la daan tëdd bu guddi mu tàngal loola attaay da ngay xam ba ba fajar daanaka day bax nga ne ñëw ne ko baax na mën la teggil bu ci kanamee mën la tegaat ko ci da ko def ba ñuy nodd te du ko xel kase noon reer bi danañ ko fi ba moom la ñuy xëy ndékkee di la loo ba da ngay bës ba ba ñaq wi di sotti ko ci kawam day mel ni ne tawtee fi moom it te toogan ci mbedd mi tawtee ko dàq ndax day taw ab turki daa lay solte day jël day jël laf bi dong yiir ci boppam ne la ngay taatan di duy ci mbaa ay saar yu mu tegan fii da ngay taatan duy ci ba mu feete bu subaa doo xam lu mu doon doyee ndox ma doo ji te bu suubaatee mu woo la nga xam ne loolu lépp nag sa bakkan la lay tàggat loog am lu la la bëggale moo tax man ne nag ab yar bu dee benn yar ci sa bopp réew mi gannaaw maase nañ ne ñu jub bëreetut boo bëggee di jubbantee nag du sotti fii ne maa lay moom a tasan réew mi bi bi fi sëñ Tuubaa Cheikh Ibra ñëwee la yaanuy moom xew te jàmm joo fi gis yaanuy moom a ko indi waaye maa lay moom moom bala nga ko moom bu ko ne ñaqee moom moomatoo ko ku mën yóbbu rek